bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi salaam lay tàmbuleeti fil kalaam musalliyan alal imaam yeneen ba jiite sang ya alhamdulillahi salaam lay tàmbuleeti fil kalaam musalliyan alal imaam yoneen ba jiite sanga si woo muriidi daam waaju ku digg ne naam nan wuy si mustafal humaam jiitul muridi bambaya ma del siwoo muridi daam waaju ko digg néema naam nen wuy si mustafal humaam jiitul muridi bambaya bis bam jële ahmadu daam andi ko Tuuba mu ni kam ba tax murid yi ñëw diraam màggal ko war na mbokk ya taarixu hubbi nay gëtëm cawam sësin lali xëtëm di fuglu Mustafa ak feesal na yaari feggu ya ma wax la lëf calam yaxal fesal jalooreyam saxal lisaanu xaalani waxal ma wax lu foqun nopp ya cawam sasin la bamba dem bawam tasin xatum renam téeméeri at yu feese ndam yëg na ca sangu xarnu ya cëwam sësin la bamba dem bawam tësin xatum renam téeméeri yu feese ndam yëg na ca sangu xarnu ya ku samp mbir di ko lawal téeméeri te daanuwul bàkk la war na say géwél yelloo nga mbooleem tagg ya baa ngi raw na capital jumaam ju ji yaa ko yaal indil ko raay bi am di daal gàddu nga ngeen ji raay Tuubaa ngi raw na capital jumaam ju mag ji yaa ko yaal andil ko raay bi ni daayal gàddu nga ngeen ji raaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñépp xaw wooteel ko ñépp wabu ñëw jaaraama wub nga lamb ya màggal gi andi arab ak asiya ki ñooñ Europe wallaay kenn du la xarab ëllëg fa gaay yàlla ya bis bi la yàlla yi dimbule bis bi la yàlla yi jéggale bis la bu yàlla yi seddale ay may ca gaay yu fekke ya bis bi jar na war ci gaal di joow di joow di joow ba tàbbi Sénégal Malek Guinée ki Portugal ñëw nañ ñi gaay Gambia bis bi la jar na war njanaaw mbaa yu dëkke naaw ngir man di teela wuy si gaaw fëx te jajji salliya jar nay fandaani dox ci naaj bareer ca manding ya di laaj bu dikkatee na ngeen ko waaj moo gétti bis yu màgg ya Cheikh Mamadul Mustafa Cheikh Mamadul cheikh Muhammadul Mustafa cheikh Muhammadul Mustafa borom daarul xuduus am ndee ko woote neel bërét ñaar fukki fan ci tam xarit bokk ki jaambur ak xarit bu kenn geesu ngant ya am ndee ko neel bërét ñaar fukki fan ci tam xarit bokk ki jaambur ak bu kenn geesu ngant ya Cheikh Moustapha du woote neen bu luute lii du neenu neen elam ci lëm du ngeen ko seen faddu na wuggi baade ya xam-xam ba raw na seeni daa ameena sunna toog bi daa jàngam bu rëy moonu daa ubbee masal yu lëntiya ak yeewu jot na yeewu leen gëmmentu wey na gimmi leen bu leen di tan xamlu leen roy leen ca gaay yëgg ya amoon na gaayu yàlla yee atax na bis bi fu mu xayee ñu wuy si lëf du leen téye ci yàlla gaayu yewu ya amoon na gaayu réer a réer ba bis bi mus la tax ñu buur neenal ko doy na ñàkk muur laaw la ma gaayu réer ya jaaraama mbër ma ko tërën xarnu bi mat na sëkk ren wallaay am di yaa di ron yaa gétti peer yu gudd ya sab samp mës na dëng daay sambaar mi yow jënam du naay giñ naa ni yaa rëyuk wilaay ràngoo nga pal yu tedd ya yaa nu jamal jawfal faraa te yaa nu tàggaleeg miraay tax ba nuy solit daraan fab kaala teg ca wagg ya géeju ngërëm ga yaa ko xuus yaa nu duyal bagaan yu fees te ay borom daarul xuduus dundal nga mbooleem njëndi ya saw ngañ ron na yaa dimbër bàyyi Cheikh Ahmadul Maxtaar Mbakke yaa nàmp yaari weeni ngor say dëggu sax na yaa ko dër ci piyi buur yu faddu ya sa baay ba yaa ko tër biyaal njaboot gi yaa ko tër xiyaal wooteem bu rëy bi yaa ko yaal si gil nga mbooleem mbokk ya jikko yónneen bi ngay daloo koddum sa ba ngay solo jaaraama njool amintaloo siggil nga ndaama kokkiya jikko yónneen bi ngay daloo koddum sa ba ngay solo jaaraama jaaraama jaaraama njool amintaloo siggil nga ndaama kokki ya dambaala rang mayu teey waajal la jox la ab liggéey yaa gàddu raayaw ni giseey wa mën nga doomi ceddo ya bambaala rang mayu teey waajal la jox la ab liggéey yaa gàddu raayaw ni giseey wa man nga doomi ceddaya sa baay ba am na lëm bëggoon wam sa si yow la fi tegoon cax la ca buntu bam jegoon yaa digg cax yu nëbbu ya man ngeb xalifa man na doom yilif na ñépp ngir jukkoom mbër yépp xam nañu cëroom moo mën a jiite dann ya cheikh muhammadul mustawa mat na xalifa mat na doom yilif na ñépp ngir jukkoo mbër yépp xam nañu coroom moo mën a jiite dànn ya jurbel la bamba la xasoo mbër yépp dal di jaxasoo keroog la mustafa fasoo mottuli mbooleem dénk ya am sa si tax na ñëpp wéet demam gi tax na ñëpp tiit bu dul ko nag kii ko fi wuutu kon yol mi dem ca géeju ya ci ahmadul xadim yaakaari jaam ñi wam sati tax na ñëpp weet demam ngi tax na ñëpp tiit bu dul ko nag kii ko fi wuutu kon yol mi dem ca géeju ya déglul ma wax la ak demam borom tuubaa ak mag ña teewe ay mbiram waajal ko def ko ca këram keroog tafaatuñu waxtu ya guddik àllarba lañ ko fat ñaar fukki fan ciw tam xarit wam si tàbbi nañ nawet murid ca déq ya la xew keroog fa Jurbel la xew keroog fa Jurbel la xew keroog fa Jurbel la xew keroog fa Jurbel tax na nu fàtte Karbala ngir kanu daa karal bala fàddu na tàggoog soppe ya yaari muhammadoom yowoon xejjam ya ñoo ko waajaloon addagani ma ñëpp miin tànn xiraw na gàdd ya see xëri ma santu jóob moo leen ñetteel bàmbaa ko soob yitim ji rëy na mës la diib ci yàlla gaayu sàmm ya see xëri ma sant Jóob moo leen ñetteel Bàmba ko soob yitiim na mës la diib ci yàlla gaayu sàmm ya xal maa ngi jooy boobee ba tey ba faf ni wooy demam gi tax na ruy gooy fuñ dee tiraase xontu ya ñu daldi gaare ab dalaay ci kër ga teg jooja waay keroog la am di wuutu baayam te moo gunge ya ñu daldi gaare abdalaay ci kër ga teg jooja waay keroog la am di wuutu baay te moo yabal gunge ya bamba ko cib jataay dinku ko naa ku rik waay bis booba Tuuba la bum tee ma dem ca njëndiya yen ko fa yen bu rëy diis loola waral bis bam ni diis Cheikh Moustapha dikk ni suus muñ ba defal ko dénk ya yen ko fa yen bu rëy diis loola waral bis bam ni diis Cheikh Moustapha dikk ni suus muñ ba defal ko dénk ya la daam ajoon ci ak ñëwam Tuubaa mëne su ko xalam am di defal ko ak bëggam màggal gi loolaay yilla ya keroog la Moustapha yabal juróomu góor ñu dal ko jël ci aw definu xel dajul dem nañ lu jiitu yëngu ya sëriñ basiiru mooy imaam njool soxna faati ma dumaam moom la ñabal mu indi daam daa mara jëxit ca àll ya sëriñ mooy imaam njool soxna faati ma dumaam moom la ñabal mu indi daam daa mara jëxët ca àll ya ànd ak muhammadul amin ak tàndaxi ciy woowa yoon sëriñ mataar si ca woon si xëri jëng ca ànd ya buntu ba maam Cheikh Ibra Faal yettoon ca soowu kër ga daal fa la jaar ma ko faal yaa yàgga digg junj ya watab sëriñ Balla Bariir duut siisee jiitu dib sofeer dalaay ba ak ñëwoon ca biir raw nañ ca taaluñ làmp ya watab sëriñ balla bariir duut siisee jiitu dib sofeer dalaay ba ak ñëwoon ca biir raw nañ te taaluñ làmp ya du lépp sofeer yëgul tinul murid ya ñoo ko nax xasal muy fas ni ay bagaas la jël xanaa bagaasi yàlla ya Cheikh Moustapha yónnee fandaam ak cerno ak gede imaam ni leen na ñépp seeru daam mag ñépp ñal gu guddi ya Cheikh Abdoulaye Diop taxaw sëñ maamuram jaxate ñëw ñu àndandook Cheikh Ibra Ndaw gas kër gu mel ni lëhdu ya Cheikh Mbàkke Bousso jóg taxaw jullee ko sàppe ya salaw te feeña luñ fa jëfi ndaw rëtuñ ba sànku sunna ya Cheikh Mbàkke Bousso jóg taxaw jullee ko sàppe ya salaw te feeña fa jëfi ndaw rëtuñ ba sànku sunna ya am sëlmalee la dal buur bam la dal buur wàcc ca ma mel ni weer Cheikh Mad Lamin Gay dem ca biir Cheikh moo dundu mbem sang ya yaari Muhammadoom ya jël jëmmam ja jox leen ko ñu jël jibbal ko yàlla mi dogal keroog la tàggook coona ya yaari muhammadoom ya jël jëmmam ja jox leen ko ñu jël jibbal ko yàlla mi dogal keroog la tàggook coona ya Cheikh mu dundu mewaayi saam moo mu jéggin pax manaam moo mu jalaal yaramu daam jëwriñ la wóor na donga ya sëriñ bi am na ak bëggam def na ci xol yi gépp gëm dem na ba dil si cib dëkkam desul ca àlli ko ngoya sëriñ bi am na ak bëggam def na ci xol yi gépp gëm dem na ba si ci ab dëkkam desul ca àlli ko ngoya inaa lilaahi yoon yoon inna ilayhi raajiun bisub keroog ña fekka woon riisoo nañoog malaaka maam cerno teew na booba bis mësula am ca seeni bis demam garaw na mbépp mbas yëgal na ruuy xejj ya alaaji fàllu ngeen ji doom ñëw na te andiwul sa bisu keroog mbir yëpp luum la xew xajul ca bopp ya alaaji fallu ngën ci doom ñëw na te andiwul sagoom bisu keroog mbir yëpp luum la xew xajul ca bopp ya Cheikh Abdoulou bawoo fandaam murit bu saadix la fadaam Cheikh Yaddu Jaañ Cheikh Moodu Laam Cheikh Astu Juuf ca sàppe ya sëriñ ma mbara mbay siise jaas Cheikh Modou Mbay jaloom ni jaas sëriñ ma joobum tobbi baas yéemal murid yu dëggu ya Cheikh Baara Sill Baara Faal feggoog murid ya Ceerno Faal Muhammadun Saadix ba Faal fi yàlla gaay Bamba ya sëñ Saadix ak sëriñ bu soobe yooya ñëw di raas jee ma ni way way ma ni baas ahmadu jooy leel dongo ya xanaa ñanoon seexil xadiim xanaa ñanoon seexil xadiim Jurbel la des ñoo gën a juum firnde ngi nii duñ ko miim kuy wax na andi firnde ya xanaa ñanoon Seexil Xadiim Jurbel la des ñoo gën a juum firnde ngi nii te duñ ko miin kuy wax na andi firnde ya bii bis la am di woote woon te àndu koog ña fi ne woon yasam sasin la ko sosoon moo gétti bis yu màgg ya Cheikh Mouhamadul Moustapha bii bis la am di woote woon àndu koog ña fi newoon ca sam la ko sosoon moo gétti bis yu màgg ya màggal gi moonu ko digal dinu ci waar ak digal ngir bëgg noo fegal mbugal bu leen di fàtte digle ya defin wa jar nay fàttale ci alxuraan lay tàmbule bul fàtte nam ko toftale booleeg durus xasiide sëriñ Masamba ay sa jéey lay jiitaloo bi léb liggéey bàcci gomaay ba mës liggéey moo jekki jiite jukki ya sëriñ Masamba ay sa jéey lay jiitaloo bi léb liggéey bàcc gomaay ba mës la géey mooy jëkki jiite jukki ya ñenentu kaamilam la saam ca biir bërëb ba neema naam koñ bu ne aw nit ni fekkam askëy ca njàngum dongo ya ñu tas fukkam yu topp yaar jukki ko jox ko ay xeyaar ñu sax ca mihraab ba di xaar durus ba dégg nodd ya ñu dellu tasukka kiyaar jukki ko séddaley kibaar ca biir jumaa ja foofa jaar gis leen ca fenkuy keno ya yenentu koñ ya foo ca xaw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddim nga kenn du ca nelaw foo tollu dégg kaddu ya jës bul mu xaddimaat ma waahibu kimimiyaat ñu jox ko gaay ne xibaat ñu géew di jàng tagg ya darul xuduus fanaani riir dikruk salaatu kenn duruur ñaley fanaane joxe reer njàng ma ànd ak bernde ya yëley kuréel ña ngay durus yëley kuréel yori kurus xam ngeen ni am di lii mu sos aw na ca xalli sunna ya bu ñu xëyee di ko seyaar mu nuy digal te dinu waar fàttali yoon wa bamba jaar ba jiitu gaay yàlla ya te nee waaju fi fanaan seen nga ci bàkkaar ak i daan te loolu moo ko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya te nii na waaju ñàkk paas ba mën la ñëw tuuba di taas na jaay mbubbam te wut ca paas dem am na ñaari mbubb ya te nii na waaju ngant tax ba mën la ñëw tuuba na dox aw yoonu tuuba ba marax mu toog dundal fa guddi ya ku ngàbbu ëddiyaam di ñëw gis am kemam mënu la ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw nee na saa soxla moo di jëmm ya nee na ña doon gunge si daam min jundi am laakin saam an mu ne ñëpp ay ñëw ni kaam màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale bàkkaari gaayu taq ya réewu urib yi wuy si leen réewi arab yi wuy si leen donay xadiimu woona bu leen di tànqam lu woote bu leen gëlëm ba ñàkk muur bu leen nelaw ba fandereer bu leen di tëx tëx lu bëreer njaacaar du mel ni gumba ya waral taxaw ahmadu baas cofeel gi rekk moo daas nga xam ni doo wek ka taas ba jot fukkeeli mataya Cheikh Moustapha di mbambulaan Cheikh Moustapha di mbambulaan Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha yaay mbambulaan duusam yi ëpp na i moo tax ma jóg di ko dagaan ya ca wagge xejji ya ahmadulaayi fil xitaam laay mottule samay kalaam musalliyan ala al imaam fa di njiitul sang ya Amadu Laay fil xitaam laay mottale samay kalaam musalliyan alal imaam di njiitul sang Amadu Laay fil xitaam samay kalaam musalliyan alal imaam di njiitul sang Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te mboole ak mbooleem njabootu sëriñ